mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp li waral sunu jataay bi tey mooy waxtaane daara yi nga xam ne daara pamood la te ñu wax ne war nañ koo ubbi fan yi bi fi 32 daara yi daje gis nañu ne lu ëpp juróom noppiwu ci yeneen yi ci des na lu bari yeneen ci des na tuuti ñu bëggoon bala ñu ko ubbi yépp noppi benn yoon ñu ànd ubbi ko ndax xalaat la boo xam ne nu rafetlu nañ ko bu baax xalaatu daara moderne dafay am ñoo xam ne dañuy wax moderniser daara amul lu ci am waree su ko moderniser waaye daara warees na ko moderniser ndax bu demee ba nga xam ne ka ko yor néew na ci doole am na jafe-jafe ña nga xam ñoom lay jàngal daara xëy na yalwaan bu ci mën a ñàkk waaye nekk ci mbedd yi nekk ci taax yi nekk di yalwaan kooku wax dëgg yàlla lu mat a moderniser la moo tax bi ñu waxee daara moderne yi ñu bari ànd nañu ci rafet lu ko loolu itam nag muy xalaat bu rafet waaye li ci gën a doy waar mooy bi ñu waxee ne dinañ ko liggéey ci mi weer nangami weer yooyee daanaka ëpp na nangami at yoo xam ne sottiwu fi bàyyi yu bari sottiwu ci ah, man mi wax ak yéen daara ji ma nekk muy daara Touba Mbélan boo ñu gëjee gis entrepreneur bi ak léegi ëpp na ñetti at yoo xam ne gisuñu te defe naa ne loolu ci appel door ji ci lay doon ndax tànn koo xam ne dafa wane ne mën na ko boole ay daara yu bari yor ko te amul kàttanu yor ko mooy indi mooy sabab jafe-jafe yu mel nii waaye li ci am solo mooy ndegam lu baax la xalaat bu rafet la fa tabarakallahu ba ñëpp ànd ci li ma defe ne moo gën ñu gën cee am yitte ba xalaat boobu dara bañ cee sooxe mu sotti ci jàmm ñu jàng-jàng mu ñu bëgg kiy jàng alxuraan ak ka nekk ca école ba di jàng français yam kepp loolu bu ñu ko defee li ñu bëgg lépp des na ko mën a am xalaat yi moom yàqoowu ci waaye doxin wi moom sooxe na loolu nag lu mat a gis la ndax fanweeri daara ak ñaar yi nga xam ne mooy pamoot yi nga xam ne mooy paquet ñoom mooy daara publique yi yooyu moom fa tabaarakallaahu moo gën a dox waaye daara pamol yi moom des na dox lool liy sëkk nag fii ma wax rek fi la nekk loolu nag ma defe ne kilifa yi nga xam ne ñoo ko war a yëg xamewuñ ko noonu muy président de la république Macky Sall ak ministre bu yor éducation nationale buñ ko xamee woon noonu nañ gën a soññ ñooñu gën a soññ ñi ko yor ñu ñu ñu taxaw ci taxawaay rafet inspection de daara seeti nañu nit ñi ba tàyyi réunion nañ fu nekk daje nañ fu nekk formé nañ sax jàngalekat yépp ba nga xam ne kenn ku ne am nga nangami jàngalekati arab yu alquran yu français ba tax na loolu moom lu ñu rafetlu la waaye nag fi ñuy jànge moom moo des te sotteegul am na ci yoo xam ne sax daanaka tàmbalee guñ ko loolu nag ump na kilifa yi xam naa ne waaye ñu xam ne noonu la demee ñu dimbali nu ba yëpp gaaw te àgg te ñu tàmbali njàng mi ba mu àgg fi ko bëggee loolu defe naa ne bu ñu ko defee ndamul réew mi lay doon ndamul lislaam lay doon waaye ndamul président de la république lay doon ndamul ministre bi ko yor moom lay doon te bëggunu lu dul ñëpp am ndam ñi jàngale am ndam ñi jàng am ndam président mi leen jiite it am ndam loolu rek mooy sunu yéene yàlla na yàlla dimbale ba mu mën a sottee noonu fa tabaarakallaahu loolu laa ci amoon i kàddu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare te di leen baalu xaq te kàddu gi ñu yëkkati ñu di ko yëkkati ci turu eh, daara yi nga xam ne mooy 32 daara non public yi nga xam ne ñoo aj ci projet bii di PAMOD tey nag eh, li waral kàddu yi dañ fee amaloon benn ndaje mu mag moo xam ne mboolem 32 daara public non public yooyu yi ëpp ci ñoom teew nañ mboolem juróom-ñaari région yi nga xam ne ñoo ko bénéficié woo ci biir Sénégal région bu ci ne am na ñu leen fi délégué nga xam ne ñaar fukki daara ak benn teew nañ ak daara yi nga xam ne it bi ñu waxtaanee ba waxtaan wi egg ñu tàmbali ko ci 10 ci suba ba. jullee fi timis ba gee fekk nu fi lañ tënk lépp dañ cee eh, doxalewaat it ak maanute ci kàddu gi ñuy bëgg a yëkkati mooy mboolem daara yi nga xam ne dañoo waroon a teew te teewuñu ñëpp ñi ci mën a jot jot nañ leen waaye ñoom ñëpp ñoo ñi fi yendu ñoo bokk genn kàddu kàddu googee it mooy nuyu président de la république ne ko Serigne Cheikh waxee léegi alaaji Macky Sall nuyu ministre am bii di Mamadou Talla nuyu it directeur de inspection de daara oustaz Babacar Samb di nuyu it euh, coordonnateur u projet bi di Mamadou Mbodj Diouf waaye di leen xamal ne daara yi de daje nañu waxtaan nañ la jiit woon ci waxtaan bi mooy kenn ku ne waxee sa tolluwaayu daa daara fan la toll waaye bi ñëpp waxee ba daaneel daal mbokk yi am nañ kersa lool ndax yég nañ ne daara yi yi ci àgg yi yi ci jege àgg sax yu néew a néew la waaye yi ëpp ci daara yi dañoo ne ci sànce am na ci yoo xam ne ci fondation lañ toll am na ci yoo xam ne ci rangement fenêtre lañ toll am na ci yoo xam ne ci rangé bañ war leen xat daxa dëgguñ leen ci lañ toll am na ci yoo xam ne it xadd nañ leen waaye monteeguñ seen i bunt raaxaguñ ko te loolu ministère bi noo ngi koy ñaan nun 32 daara no public yi mu sol aw dàllam lii nuy wax bu ci bëggee am lu ko gën a leer mu dugg ci daara yi seetal ko boppam bu boobaa lii nu wax dana ko fekk léegi nag ñu jekki ba naga ni ñu jot ab xibaar ne daara yi dañ leen war ubbi ci weer wi loolu moo tax ñu dajee di waxtaan ci loolu nan lañ mën a ubbee daara yoo xam ne yée ngi ci fondation yee ngi ci racé yii xëddaguñ leen te noo ngi fàttaliku 28 novembre 2013 bi nu Macky Alaaji Macky Sall woowee ci eh, Sorano ne day eh, lancé waat procès bi gannaaw bi mu jotee ci réew mi lam nu waxoon ba fi mu toll nii fàttewuñ ko dafa waxoon ne dafa am yéene ci daara fas yéene jàppale waa daara wax ne xaalis bi mi ngi fi am na yéene daal di tàmbaleendoo daara yëpp tabaxaloo leen jox leen seen i borom ndax dafa am yeneen daar yu ñu séntu yoo xam ne bëgg nañ yi àgg bañ jëfandikoo ko ba yooyu ñëw président ñi ngi lay fàttali sa kàddu googee di ko fàttali sa ministère bii nga xam ne mi ngi lay jàppale ngeen xam ne daar yi euh, sëriñ daara yi ñu ko jox aajo woo nañ ko woo nañ ko waaye yàkkamti nañ lool daara ji àgg waaye nag ba nga toogee ba nag ñi ngi séntu loolu te am nañu yéene yi nga inaugurer daara yi ci sa kanam waaye nag mu ànd ak inauguration boo xam ne day fekk mu sotti coleet ba lañ fa yéene ci e, taxaw fa goney réew mi jàngal leen fa njàng mucc ayib mu mën a am waaye daara yoo xam ne amul ndox amul courant euh, ya ca yañ ne ñoo jege ak gës néew équipement ba xaaj ba ñëwagut ñu joxe ndigal nañ ko ubbi loolu dëlu sunum xel loolu moo waroon ñu daje fi di waxtaan xam nañ ne euh, kilifa réew mi am na ci yéene xëy na ministère bii koy jàppale am na ci yéene waaye nag bari na ci loo xam ne umpule lay doon loolu moo tax ñu yëkkati suñu kàddu ngir bëgg loolu leer ñu xam ne daar yi ñuy wax nañ ko ubbi eh, public bi moom état bi moo ko moomal boppam donte xam nañ ne ñoom itam li dal yii moo leen dal waaye noo public yi nga xam ne nag ci suñu loxo la nekk yooyu ñu ngi leen xamal ne jege gut fu ñu ko mën a ubbee kàddu gi nga xam ne daara yi ci lañ maase jo ñoom ñëpp ñu maase ci ñëwuti ñu woolu téléphone ñu joxe seen kàddu ca loola mooy daara yi ñoom ñëpp nee nañ duñ ko mën a ubbi ndara du daara yëpp dafa àgg kon bu ñu bëggee ñu ubbi daara yi nañ àggale mboolem 32 daara yooyu ba mu àgg coleet équipement yi ci war ñu def ko ca bu boobaa waxtu bu ngeen jàpp ñu ubbi rek ànd nañ ci ak yéen waaye lu lool nag ubbite gi moom ñun ànduñ ci la tax ñu di ko waxit mooy xam ne yéene yi ngeen am ci bëgg ñu taxaw doomu julli ñi jàngal leen condition yii daal di toll mëneesu ko caa def te it bu ñu sañoon bu ngeen ko xëyee ubbi moom la ngeen ci bëgg ngeen am ko ca loolu daal moo doon kàddu gi ci ak gàttal ñu di ko wax ci turu mbooleem 32 daara no public yi e, ci ñaar fukki daara ak benn yi teew ak e, fukki daara ak benn yi nga xam ne teewuñu te ñu jot leen téléphone ñoom ñu joxe seen kàddu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Je me nomme Cheikh Sam, directeur des études du Dar Nour Islam de Géoul. Mais également, euh, je suis propriétaire de Dar Pomod. porte la parole de mes camarades bénéficiaires. Nous remercions le chef de l'État euh, de sa ferme volonté de booster l'éducation à travers surtout les dards modernes. Nous remercions également à M. Babakar Samb, inspecteur des DARA, et M. Mamadou Diouf également, coordonnateur du projet PAMOT. Nous remercions également euh, tous les khalifs généraux et surtout le khalife général Cheikh Muntawa Mbake qui nous a accueillis ici. Et là on appelle le Kergoumak. Donc ici, depuis ce matin, les 32 propriétaires de daara non publics se sont réunis pour échanger sur les conditions d'ouverture des Dara non publics. On a eu écho que les autorités voudraient ouvrir de manière imminente les daara alors que nous savons tous que sur 95 pour cent des daara sur 100 pour cent si on a 100 pour cent 95 pour cent des daara sont inachevés donc nous nous sommes réunis ici pour discuter sur les conditions sur lesquelles les daara doivent être ouverts euh, et nous avons trouvé un point commun, c'est qu'il est très difficile de, d'ouvrir les daras à deux vitesses. Puisque on sait qu'il y a des daras qui sont presque achevés, mais il y a également des daras euh, qui sont en, en construction. Donc euh, nous remercions également tout le monde, euh, tous les bénéficiaires ici, nous remercions également le coordonnateur euh, qui fait des mains et des pieds chaque fois. Euh, et chaque fois qu'il nous convie ici, mm. euh, il nous met à, l'aise. C'est toujours dans un cadre vraiment enchanteur qui nous accueille. Vraiment, nous remercions également Mustapha Diop, Serine Mustapha Diop, le coordonnateur. Nous remercions également tous les Serindars ici présents. Non, on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'ouverture, mais on va échanger, on va voir sur quel sur quelles conditions ouvrir les daara du moment que l'écrasante l'écrasante majorité des daara sont inachevées comment les ouvrir donc ça c'est pourquoi on a tenu ce point de presse euh, pour voir dans quelles conditions on peut ouvrir les daara sur le, voilà voilà le point sur lequel nous nous sommes tous accordés c'est que nous n'allons pas ouvrir les daara à deux vitesses quitte même à attendre les daara qui sont en voie de construction pour ouvrir. Parce qu'on nous avait promis que tous les dars allaient être commencés et allaient être achevés. Donc, pas le cas. ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait qu'on attende également euh, ceux qui sont laissés en rade.